aleykum wa rahmatullahi taala wa alxaqu saadu ñu leen di nuyu di leen di siyaare bu baax a baax di leen ndokkeel ci ramadan bi beneen yoon di ñëw nag di dalal premier suñu gan bu ñuy dalal tey di oustaz Cheikh Mafari Ndiaye ci biir dars yi nga xam ne dañ koy def ci weeru koor wi ñu war a waxtaanee moom nag ñaari tomb wante juróom-ñaari tomb yooyu buñ ko commencé bu àggul tayit eh, ñu bàyyi ko beneen alxames masalan ñu dalalaat ko ndax it pour détails yi mën na amu gudd ba du ko mën a àggale incha allah li ñuy waxtaane mooy eh, lii di li ñuy wax eh, ndono ci alquran itte boo xam ne solof boo xam ne am na ko ak lii di ci hadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak salafu saalih ulama jullit yi solo boo xam ne joxoon nañ ko lii di mbirum euh, ndono saxaaba yi nga xam ne siiw nañu ci wàllu xam-xam bi ñu tuddee xam-xamu miiraas saxaaba yooyu ñan lañ woon bokk na ca ba léegi e, miiraas ca jamono ceddo naka lañ daan ko defee e, lu tax góor di am benn léeg-léeg du toujours waaye léeg-léeg góor di am benn jigéen di am ñaar loolu lan moo koy waral ban xikma moo ci nekk ay juróom-ñaareel ba di lan la nga xam ne mooy kiy sàkku xam-xamu lii di miraas eh, lan mooy li nga xam ne c'est essentiel pour moo xam ko ci xam-xamu miraas ñi ngi am kontaan te mbégte lool pour jëral oustaz Mafari Ndiaye macha allah di am kontaan ci li mu nangu suñu woote.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 وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجلندي نيجلندي لينزي أربع دي دولي دي دلو لين لوكيلتي ويرو ما غوسل وينا خانمو لينك دي نيان سنورانتو تبارك وتعالى mu nangul ñu suñuy jaamu yalla te fulal ñu ko eh, sun borom may ñu katan dañ man ko agale ci jamm ak tawfiq ci nam ko bëgge eh, ni nga xamne non la ko daara ji sakko ci imam Pam Ndiaye sakko ko ci ñun ñi jité daara ji ngir bëgg dundal wëru koor wi ci walu xam-xam eh, ñu tanon ñu nak xëy japp mën nañoo waxtaane ci wàll wi di xam-xamu miraas doonte suñ xam-xam euh, soriwu ci lool waaye incha allah ñu jéema a àndanteeg lañ ci xam rek ci suñ kam kàttan soo defee tomb yi ñu bëggoon a waxtaane ak yéen mooy ne ko imaam junje léegi rek euh, ci juróom-ñaari tomb yooyu bu fekkente ne waxtu wi xaj na ci ñu def ko ci bu waxtu wi xaju ci itam ñu def lañ ca man bu dellusiwaatee àggale la ca allah xam naa gën jaa néew fanweeri minit lañ bëgg a jël ci waxtu wi. su ko defee awalan ngir tàmbali dañuy wax xam-xamu miraas ci sharia al dafa am yitte ju rëy rëy rëy am yitte kawe kawe kawe joo xam ne sharia al islaamiya jox na ko lii di xam-xamu miraas. ndax xam-xam la boo xam ne amul kenn kum mbay ci mujtama al islamiya kenn kum bàyyi ci al mujtama al islamiya bi maanaa ci nit kenn ko nekk rek xam-xam boobu aju na ci yow ak nañ koy defee su defee xam-xam boobu nag am solo gi mu am solo war nañoo xam suñu borom tabaraka wa taala yitte ji mu ko jox moo tax dañuy njëkk a tomb bi njëkk mooy alxuraan moom jën yitte la jox xam-xamu miiras su ko defee bu ñu waxee loolu xam nga miiras ci lislaam alxuraan moo ko tënk ay reegalam tënkal ko ay xawaaniinam nga xam ne ay reegal yim ko tënk ak usul yim ko tënk euh, mënee ko jéggi boo ko jéggee rek da ngay daal di xëtt yoon ndax. alal ci doomu aadama dafa mel ne mooy kenn dundam ci ni ko xame ci jamono moo tax suñu borom tabaraka wa taala jël xam-xamu miraas féete la ko boppam ci séddaliin wi leeral ko ci alquran bàyyiwu ko benn yonent ngir mu séddaleel ko ko du mel na ko bàyyee ngir mu séddaleel ko ko amul kenn borom xam-xam bu ngi ko bàyyee ngir mu séddaleel ko ko suñu borom tabaraka wa taala moo jël xam-xamu miraas leeral ko ndax suñu borom tabaaraka wa taala xam na ndax suñu borom tabaaraka wa taala mi bind doomu aadama xam na li ci doomu aadama ci bëgg gum bëgg alal nga xam ne am na ci ñoo xam ne dañoo am tawati alal am tawati alal kon suñu borom tabaaraka wa taala bu bàyyi woon xam-xamu miraas ci doomu aadama rek loola xëccoo lay jur gis nga. biñ teggee yoon suñu borom tabaraka wa taala dem ci tribunal yi di attawoo gis nga coolam jur alal noonu mu amee euh, jeexital ci bakkanu doomu aadama moo tax gis nga fu alal feeñ xeexoo daal di fay am waaw fu pétrole am xeexoo am fa fu wurus fee am xeexoo am fa moo tax suñu borom xam ne doomu aadama dañ ko mooñaale bëgg alal nag moo tax suñu daal di rëdd yoon yi nga xam ne ah lii laa bëgg ku ci jaarale xam-xam maanaam miiras loolu mooy bi njëkk bi ñaareel bi ci yitte bi nga xam ne alxuraan jox na ko xam-xamu miraas bu fekkente ne yaa ngi settantal attay sharia yi al islaamiya yi di topp aayay alxuraan yi doo fekk benn atte ci attay lislaam yi boo xam ne ni ko alxuraan maanaam ni alxuraan leerale xam-xamu miraas leerale na ko beneen atte ci atte yooyu mel ne julli ni alquran détaillé xam-xamu miraas détaillé woo ko noonu julli woor ni alquran détaillé xam-xamu miraas détaillé woo ko noonu attey euh, koor naka noonu asaka boo ko jëlee ni alquran détaillé attey miraas détaillé woo ko attey asaka ak yeneen yi deme na kon alquran dafa ñëw euh, ijmaal julli ak woor ak asaka sunna ñëw leeral ko waaye nag bu dee xam-xamu miraas moom li nga xam ne moo ci l'essentiel ëpp solo ci alquran moo ko leeral loolu li muy tegtale mooy defe kon nekk am na itte yoo xam ne alquran jox na ko ko am na itte boo xam ne doomu aadama yi nañ ko ko jox ñetteel ba mooy bi mu waxee alquran mu waxee xam-xamu ba noppi sardu ko ahkaam yeeg yi ca aju bi mu daanele aay daf cee dige tëkkoo ci xemeem loo ci xuppe ci ndax bu ñuy jàng aayay miraas danga ci gis ay ishaaraat waadixa yoo xam ne danga nga cay gis xutwa bi maanaa danse bi nga xam ne mi ngi ci xam-xamu miraas ci bu fekkente ne jaarale woo ko yoon wi nga ko war a jaarale bi maanaa séddale miraas bu fekkente ne da ko koo jàdd yoon wi nga xam ne yoon woowu lañ ko war a jaarale ah boo jàngee aayaat yi da ngay gis tëkkoo goo xam ne suñu borom tabaaraka taala tëkkoo na ci waaye xuppe goo xam ne xuppe na ci boo jàngee xam-xam maanaam aaya mawaaris yi ci suuratu fukk benn ak ñaar ci suuratu nisa suñu borom ba mu jeexalee xam-xamu miraas ba ne nii moom la ñu war a séddalee miraas mi la mu daaneel dana tilka xududullah lii ma wax nii ci xam-xamu miraas diw lii am nii lañ ko war a séddalee lii de mooy attay suñu tabaraka wa lii mooy dayale suñu tabaraka wa lii la rëdd nii lañ war a defee wa ko topp yàlla akub yonantam ci lim nga jaar ja nim séddaleeloo nga séddaleel ko ko kooku jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa zalika al fawzu bu fekkente ne li suñ borom séddaleloo séddale ko kooku di suñu lam lay fayal mooy ëllëg àjjana joo xam ne dafay maanaam xéewal daf cey sax mu ne loolu mooy texe gu kon nga gis ne xam-xamu miraas eh, jàngale ko ak itam nit am yittey miraas nga ñëw séddaleel ko ko ndeke loolu suñu borom mooy jànnaatun tajrii min tahtihaa loolu mooy digge gi ak xemeem loo gi mooy suñu borom tabaaraka ne ah koo xam ne nag ni ma séddaleloo miraas suñu borom ne ni ma séddaleeloo xam-xamam ni ma séddaleeloo miiraas séddalewoo ko ko benn da ngaa topp sa bànneexu bakkan def na la neex baa boog da def te tegoo ko ci xam-xam ngir def ko ci bëgg daraja wala yu dama noonu wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda xududahu yudxilhu naaran xaalidan fiiha wa lahu adaabun muhin suñu borom ku tegg li suñu borom rëdd ci séddale miiraas dem def la la neex benn tegoo ko ci xam-xam wala da nga koo def ci doole nii laa bëggee wala yu dama noonu kooka day suñu borom nee danaa ko dugal sawar wala iyaasu billaa te dafay sax ba faw te ci biir sawar du yem ca dugal waaye ay ay duma da ko fekk wala iyaasu billaa yàlla ci am sax kon gis nga alxuraan yitte bi nga xam ne jox na ko xam-xamu miiras ci tënk rek bu ñaateel ñaareel bi mooy euh, euh, loolu mooy tënk bi nga xam ne alxuraan suñu borom tabaaraka wa taala Eh, jox na ko xam-xamu miraas kon gis nga ne miraas nekkul loo xam ne n'importe qui ndax suñu borom moo ko joxi ndax eh, bu dee xam beneen xam bu mën di doon bu dee julli suñu borom eh, yàlla na jibril mu ñëw jàngal yonent ni ñuy jullee ni la def bu dee nangam yeneen atte yi comme ni ma ko waxee alxuraan dafay junj sunna yi muy ñëw def tafsil yi waaye bu dee al xam-xamu fawaid bii nag moom suñu borom moo ko séddaleel boppam ne diw lii nga war a am diw yow lii nga am diw yow lii nga war a am loolu ay masail basita yoo xam ne alquran daf ko junj rek borom xam yi nag doo ko génne waaye nag ca saxaaba yi mu tàmbalee ca saxaaba yi ñaareel tomb bi mooy sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa alihi la jox xam-xamu faraid bi waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ban dayo la jox xam-xamu faraid ñu gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee na lool ci jàng xam-xamu faraid bi ak di ko jàngale maanaam jàng ko ak di ko tasaare waaye itam wattandiko noona wattandiko lool ñuy fàtte xam-xam bi a jàng ko ba noppi sàggane ko bañ koo xamante loolu ay xadis rott na ci dañ ciy jël ñeenti xadis rek bu fekkee waxtu jot na ci xaj na ci حديث بناها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكانت لمن ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينسى من أمتي حديث بابو ابن ماجة الدار القطني نيوم نيبو نيتل نيكو بري حافظ بن حكم نيتل ما نم نينا حديث ضعيف ليتم نيه صحة لين حديثه yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na na ngeen jàng xam-xamu faraid bu ngeen ko jàngee ba noppi bu leen ca yem di leen ko jàngale te di ko tasaare ndax mooy genn wàllu xam-xam mooy genn wàllu xam-xam te mooy xam-xam bi nga xam ne dañ koy fàtte xam-xamu miraas moom da moo xam-xamu naxwu ñooyam da cay nekk rek wala nga fàtte ko ndax dañuy wax ne xam-xamu faraid mi ngi mel ne ndab lu defoon pepp boo sottee day jeex day dem maanaam ndab lu defoon pepp fi mu toll nii boo sottee daanaka bu matul lu néew a néew a néew mooy ca pepp ma taqaat mooy des ca ndab la taq bu dee yeneen xam-xam yi nag lu mel ne fiq fiqhu euh, euh, jul fiqhu salaat fiqhu siyaam fiqhu zakat yeneen yi dem noonu ndab lu defoon sool wala ndab lu defoon laax la boo toogee fañ koy jàngalee ab diir rek daa cay jàpp lu bëree bëree bëri te loo ci jàpp doo ko gaaw a fàtte ndax li nga koy pratiquer dafay bëri bu dee xam-xamu fawaid bi nag moom li nga koy bu xewee baa boog bu xewee bala boo ko fekkee bala ko fekkewaat du cee gën a chaque jour nga koy fekke doo ko fekkee bala nga ko moo tax bi sallallahu alayhi wasallam nee na mooy xam bi fàtte te itam mooy njëkk xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a nocc ci sama xeet bi loolu mooy la mooy mooy suñu borom tabaaraka wa taala daf fiy jëlee borom xam-xam yi nga xam ne dañ koy maîtriser loolu nag liñ ñu koy xamee mooy kenn ku nekk gox ba nga nekk rek foofu noonu nga koy xamee dañ na ndax dañ naan la ñi géeju ci wàllu xam-xamu miraas dañ leen di wàññi ñu naan ah diw de am na xam-xam diw am na xam-xam diw am na xam-xam ci loolu. da nga defee bu ñu fa nag dafa mel ne kon yóbbaale nañ loolu bu fekkente ne tasaare wuñ ko ñaareel xadis bi mooy Abdullah ibn Omar yàlla gërëm ko moog baayam mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. al ilmu salaasatun xam-xam day ñetti xam-xam la wa maa siwa saalika lu dul loolu fadlun ndesit la bi maanaam ngëneel la rek wala ndesit la aayatun muxkamatun wa sunnatun qaaimatun aw faridatun aadilatun xadis boobu ibnu maaja ak euh, abu daawud net le nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti xam-xam xam-xam ñett la lu dul loolu rek ndesit la mooy alquran xam-xamub alquran ak xam-xamub sunna ak xam-xamu faraid boo xam ne bu maanu la نيتلو حديث بي نجيلي تي اعوص مجي احوص مجيلي تي عبد الله بن مسعود يالا يالا گرم كوم يونت بي صلى الله عليه واله وسلم نينا نين جانغ خام خام نين جانغ القران تا نين جانغال كو نيت ني تعلموا القران وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فاني مرء مقبوض والعلم مرفوع ويوسك ان يختلف اثنان في الفريضه والمساله fala yajidani ahadan yukhbiruhuma mune na ngeen jang alquran te di ko na ngeen jang xam xam faraid te ko ndax man kat nit la ko xamne nekuma fi sax di wey amna app bo xamne buma fa agge sun borom daf ma fi jele suma fa agge sun borom daf ma fi jele te bu xam-xam dañ koy ni ñuy xam-xam moy leral la ko ci yenen hadith mo dañuy yëkkati borom xam-xam ni mune dana dem ba yaakaar naa dana xaw dana jot mos dana xew dana xaw ñaar wuute ci menn masala miraas te duñ am ku leen di gindi ca xam-xamu ca masala moom la ñu wuute lu tax mooy boroom xam-xam bu leen mën a gindi boo xam ne itqaan na xam-xam booba du maanaam moom lañ dul am ñeenteelu xadis bi ñeenteelu xadis bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax booba nag xadis boobu dafay leeral axkaamul miraas comme ni mu dikkee ci saxiixay mooy albuxaari al mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxiqu alfaraida ahliha fama baqi fa huwa li ula rajulin zakar kon loola dafay tegtale ahamiya bo bi sallallahu alayhi wa sallam nee xam-xamu miraas maanaam kenn ku nekk ab cëram na ngeen ko ko ku nekk am cëram na ngeen ko ko jox bu ngeen ko joxee cëram ba noppi nag la des ngeen jox ko góor ga fësës kon xam am xadis boobu daf ñuy leeral mm, xam-xam nee na xadis boobu moom lay leer su yi buñ ko tënkee nii daf ñuy leeralal ndeke ahamiya bi nga xam ne ci tënk rek sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jox na ko lii di xam-xamu miraas waaw ñetteelu tom bi

ak ataabiin maanaam ban itte lañ jox lañ jox xam-xamu su ko defee dañ la wax ne na bi ci njëkk mooy saxaabatul kiram ridwanullahi taala alayhim ñoom itam soññee nañ lool ci jàng xam-xam bii ak di ko yittewoo ak di ko topp bañ ko sàggane naka noonu taabiin yi soññee nañ ci naka noonu itam ulama itam soññee nañ ci jàng xam-xam bi ak di ko jàngale loolu li muy leer mooy euh, seen wasaayaay bi maanaam seen dénkaan yi ni mu baree ci di soññi nit ñi ci ni ñuy jëm ci xam-xam bi ak di ko yittewoo ak di ko fonk ak ragal goo xam ne dañuy ragal nit ñi yokkat ci ak tayyeel ci ba mujj xam-xam bi dafay sànku te xam-xam bi mënta ñàkk ci dundu doomu aadama ndax doomu aadama ñaara ko xaaj ñaara ko sédd jamonoy dund ak jamonoy faatu xam-xamu miraas nag moo xa moo jël gën wàllu dundu doomu aadama بيتي ديك موي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر نانا تعلم الفرائض نين جانغ خام خام فرائض فانها من دينكم نختي سين دين لا بوك اه نين دي جانغ خام خام فرائض نا خام خام فرائض بي كات سي سين دين لا بوك غيناو سي سين دين لا بوك نا لو بوك سي دين دنج كاي ورا بوله مو وخات فنن تعلم الفرائض wannaxwa wa sunnata kama tualli kama tuallimuuna alqur'aana mu ne na ngeen di jàng xam-xamu faraid na ngeen di jàng xam-xamu sunna ak naxwu ni ki nga xam ne noonu ngeen di jànge alqur'aan ni ngeen di jànge alqur'aan di ko mokkal di dégg maani yi ak euh, euh, xam bayaan luga be tafsir be gee aju na ngeen yitte woo noonu xam di ko <coughs> ida lahawtum fa lahaw bi rami wa isa taxaddastum fa taxaddasu bil faraid mu ne bu fekkente ne yéen ngi farat ak a tàggatu ak na ngeen di euh, tàggatu ak entraînement ci sànninte fett ak xeej ngir mën a jàmmaarloog noonu waaye bu ngeen demee bay débattre bay waxtaan nag na ngeen tëral xam-xamu faraid débattre ci waxtaan ci loolu gis nga si Umar ibn Xattaab radiyallaahu taala ci soññee bi soññee ca ñaareel ba mooy abdullah ibnu mas'ud radiallahu ne man qara man qara al qur'ana falyataallam al faraida nee képp koo xam ne jàng na na ci boole jàng xam-xam faraid ndax yitte goo xam ne am na ko so abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu itam ba tey ne na ngeen jàng xam-xam na ngeen jàng alqur'an waaye na ngeen ca boole jàng xam-xam faraid fa innahu yuusaku an yaftaxira annaasu ila ilmi man yuallimuhaa mu ne ma dana xaw de nit ñi aajowoo yittewoo ci koo xam ne dana leen jàngal xam-xam bii xam-xam boo xam ne danañ yittewoo ku leen ko jàngal kon Abdullah ibn Mas'ud la soññee ci jàng xam-xam faraid Abdullah Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu wax ne képp koo xam ne jàng na alquran waaye jàngul xam-xamu faraid topp ca mu ne kooku day dafa mel ne mu ne bu boobaa dafay mel ne li ñuy wax al branche branche mooy mm, li ñu wax manto mooy mbubb yooyu nga xam ne euh, da koy teg ci sa kaw rek du am fenn poos maanaam du am fenn foo xam ne mën nga faa génne sa loxo léeg boo demee ci euh, naar yi ñu di ko gàcc ci seen kaw mooy lu ñuy loolu nga xam ne laa wajha lahu aw laysa lahu wajhun bi maanaam koo xam ne da ngaa jàng alquran Hmm? te booy loo ci jàng xam-xam faraid mu ne noonu ngay doon rek maanaam maanaam mbu moo xam ne li ñuy wax manto rek ngay doon bi maanaam amut poos amut foo génne sa loxo génn rek lay am bi maanaam alxuraan rek lay am eh, su ko defee yittewoo gi nga xam ne asalafu saalix yittewoo nañ ko xam-xamu dañ cee soññee ba ca ba soññee nag ataabiin ne dañ koo jële ci ñoom di ko soññee ñoom itam dégg ko nga xam ne ba Euh, niñ ko waxee lislaam ba mu tasaaroo euh, ba nga xam ne lislaam bi muy doog a ñëw ni ko jàngalee ba tàyyi lépp dafa nekkoon wenn wogg alxuraan moo fi nekkoon sunna waaw euh, waaye amul woon ay tawaarif ak ak ay yoo xam ne dañoo tadwin woon xam-xam yi di ko leeral tëral ko ay xawaayidam waaw ba mu fasul ñuy génn def seen tafsir ak seen xawaayid naxwu waa nu xaat def noona waa usulul fiq def noona waa usulul xadis waa xadis def noona naka noonu itam borom xam-xamu faraid yi nga xam ne ñoo géeju ci xam-xam faraid itam noonu naka nañu def ñu di taalif ay téere xadiman wa xadisan ah, ah, ah, wa xadisan ngir xam-xam bi bañ a sànku ñu di ko awante min kaabirin ila kaabir ba ba agsi ci ñun ndax yi ko ñu su ko defee nag euh, bi nga xamee ne jullit ñi Um, ulama muslimin jox nañ day xam-xam bi di ko jàngale di ci taalif nga xam ne lu bëree baree baree baree bëri lañ ci taalif waaw ah, lu bare baree bëri lañ ci taalif borom xam-xam dañoo wuute woon nag ci taalif yi dafa am ñoo xam ne bu ñuy taalif xam mu miraas dañ koy boole ci téere yi fiq yi masalan boo jàngee risaala ca mujj ga ñu def fa benn buntu jàng jagleel ko xam-xam faraid بودي مسالك مصباح الصالح تبون تمجا نيدف تا بنت بي جانغ خام خام فاي بودي مختصر شيخ خالد بتيري دي واي دا ام بروم خام خام يو خامني نيوم دانيو جيل اسبيسيال خام خام بي كيسه خام خام بي ديكو تاريخ تاريخ ليرالتي ياتال تي صرحاني تي ديغيني تاريخ يي بارينا بي تي غنا سيو ني نيو خ مات نو رحبيه تا امام الرحبي الشافعي تاريخ ميتير بو ام nga xam ne ni laxdar yi amee xabul ci njàngum majalis ci koy doog a tàmbali téere boobu itam noonu la amee xabul ci njàngum faraid ci koo xam ne mu ngi doog a tàmbali su ko defee itam ginnaaw nag saxaabatul kiram ridwanullahi taala alayhim nii lañ yitte woon xam-xam bi daan ci soññee daan ci ñaaxe naka noonu kon ñun jullit ñi itam war nañu yittewoo xam-xam bu màgg bi war nañu yittewoo xam-xam bu foor bi nit nga xam ne noonu la salafu saalih yittewoo gën ko daa yittewoo di ko jàng daan ko jàngale daan ca soññee daan ca def ay fatwa daan ca def ay gëstu yëpp di ko ballul ci ayat alquran yi nga xam ne moo nekk ci suuratul nisa ak bu dee sawil arham mooy aaya ba nga xam ne moo nga ca suuratul ahzab naka noonu ñun jullit ñi itam noonu lañ war a yittewoo xam-xam bi waruñoo toog rek euh, sàggan ne ah xam ba maam ba booy jàng xam majalis sax boo àggee ci téere muy jàngale mara miiras da nga naan ah téere daal na li maanaam nii daal naa ko mujj ba ba mujj ba ba ba jeexal ñaar ñaar da nga ba jeexal sax doo ko faral jàng loolu li ko waral mooy jafeel gi ñu la ko jafee daal te déedéet te fekk jëfewut loolu dafa aw yoon ñu mel ne per yooyu nas rek ah, maanaam saako yooyu tegale il faut que ba jiiru bu jubul rek li ca des day daal xam-xam miiras it noonu la dafa am base bu muy tàmbalee waaw base boobu nag bu bu bu bu base bi dëgërul rek. laneen la ca kaw lu dikk gën a jafe lu dikk gën jafe lu dikk gën jafe waaye boo ko nosoo mi ngi mel ne rek boo ko per course bu fekkente ne nosu na rek day daal di jub foo jaar mu daal di jàll ñaareel mooy Abdullah ibnu Abbas mooy itam kàngam la fóore la ci wàll Abdullah ibnu Abbas abd Abdul Muttalib euh, nga xam ne euh, ibnu Abbas nga xam ne bàyyi tax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Màkka la juddoo la njëkk gàddaay ga ci ñetti at bi maanaam ba gàddaay ga bañ daa ba yéen na ñetti at yonent bi sallallahu alayhi doo gàddaay nee ko moom la yonent bi doon wax wa tarjumaan al quran bi maanaam mooy fóoréew xeet wi waaye mooy waaye mooy tarjumaan al quran moom Abdullah ibn Abbas taqoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa bare bare ba yu yàgg yàgg yàgg. waaye nettali na ci yonente bi sallallahu alayhi wa ay xadis yu bëree bëree bëree bëree bëri waaye ci mujj dundam nag yàlla daf koo nattoo maanaam mbër yi dafa sëgg taif la dëkkoon fa la faatoo ci atum 68 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la booy topp xam-xamu miraas sax moom Abdullah ibn Abbas mi dafa am masala yu bëree bëree bëree bëree bëri yoo xam ne wuute al mash al jumhur jumhur sahaba bokku na ci al awlu bokk na ci miraasul jadd ma al ixwa yi bokk na ci eh, mbokk na bu matee ñaar jëm kaw dañuy yiir maam maanaam dañuy dañuy yiir nday gi demee eh, bokk na eh, ci masala yoo xam ne wóote na ci ak ñoom su nag am na ci saxaar saxaar ay jàmbaar lañ ci woon fi maanaam kenn mënu leen ci woon waaw bu ñu leen doon lim dana dana bari lool jàmbaar lañ ci woon ci xam-xam boobu waaye dañ ci limal nag ñeent ñoo xam ne wax na ni ñoo ci gënoon siiw ci xam-xam bi nga xam ne booy xool mazahib arbaa yi dañoo teqalikoo séddalikoo ci xam ci ci borom xam-xam yi maanaam ci saxaaba yi maanaam borom ñeenti ngir yi am na ci kenn ku nekk ci saxaaba boo delloowaat sam ngir ci saw déggin ci xam-xamu mi daal na saxaaba bi déggee woon masala yi masala yooyu nag mooy masala ijtihaad yi lu mel ne mi maam ak mbokkam ak eh, ye déggit yi dégginu yennati aay سوغرين صحابه يويو كي تي غنونه سيو كي تي كما عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي مولاي ابو عبد الرحمن بوكنا سي نيغا خامني نيو جير في الاسلام مولاي دينكو مولاي دينكو تا بوكنا سي كبار الصحابه كبار علماء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم نيغا خامني موم ميغي فاتو ci ñaare manam juroom benn fukki at ak tuut rek ci euh, euh, gadda yi Euh, euh, Madina la faatoo ñeneen ñi nag Kuufa la faatoo ci atum 32 mm, euh, ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mu Abdullah ibn Mas'ud mu daanañ ko laqabale bi maanaam daanañ ko dàkkantale di ko askanale al xibr xibru al ilm xibru hada al fann bi maanaam fan xam-xamu mi ci bunt ba daanañ wax Euh, Abu Musa al-Ash'ari daan wax naan bu fe bu leen ma laajati ci xam-xamub miraas li feeg euh, fóore ji mi ngi ci suñu biir muy Abdullah ibn Mas'ud waaw ndax Abdullah ibn Mas'ud Abdullah Abu Musa al-Ash'ari daan wax naan bu leen ma laajati ci xam-xamu miraas li feeg fóore bii di Abdu maanaam um, uh, uh, Abdullah ibn mi ngi fi bu leen ma laajati ci fànn gi. ñetteelu kàngam yi ci saxaaba yi nga xam ne ay fóore lañ woon ci xam-xam miraas mooy Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Abdul Muttalib mooy baayam moom lañ daan dàkkantele amirul muminin waaw nga xam ne moom bàyyi taxan maanaam doomi bàyyi bu ndaw la ci yonente bi sallallahu alayhi mooy Ali moom la yonente bi sallallahu alayhi wa moom bu jigéen bi nga xam ne moom lañ tuddee Fatima nga xam ne moom Ali ibn Abi Talib yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yar bokk na ci jullit ñi nga xam ne ci ndawi jullit ñi nga xam ne bokk na njëkk naa dugg ci lislaam nga xam ne fekkee ne mashahid yu bari mashahid yu bëree bëree bëri fekkee na ko waaw lu dul xaswatu tabuk rek la fekke wut te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi moo ko sàkku ci woon moo ko sàkku woon ci moom mu euh, bañ a fekke xare tabuk xëy na am na euh, boo jàngee siira lam ci jubloon moom Ali ibn Abi Talib mi ngi nekk xalifa xalifatul wala mi ngi nekk ginnaaw bi nga xamante ne Seydina Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu euh, faatu na mooy rey nañ ko moom Seydina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiallahu taala anhu mi ngi shahid wala mi ngi faatu ci Ramadan ci atum 40 ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam kàngam la woon ci euh, euh, fóori maanaam ci ci ci wàll wi moom sax bokkoon na ci moom Ali Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu bokkoon na ci ñi nga xam ne daf cee daf cee xereñoon daf cee xereñoon bokkoon na ci xereñ gi ñu ci xereñoon masala da ko daa dikkal rek mu daal di tëb jori wax masala mama ah, wax nañ ne daa nekkoon na ci benn jamono mm, ci kuufa di xutba ñu indil ko fi ci masala yu jafe yu nga xam nga xam ne dana aaja tarayus ak yu waaye dañ koy indil masala ma rek mu daal di tontu masala ma ci jumla ju gàtt gàtt gàtt daal di wéy nga xam ne masala moom sax day am cosaan ci miraas nga xam ne moom la ñuy tuddee al minbariya nga xam ne masala naka la demoon Seydina Ali ibn Abi Talib daa nekkoon di xutba ci jumaa ji ci Kuufa tàmbali xutba ba alhamdulillahi alladi yaxkumu bil xaqi qataa wa yujzi kullu nafsin bima tasaa wa ilayhi almaabu warrujaa noonu la doon defee sàcc yi bi maanaam noonu la doon xutba di def sàcc yi biñ defee loolu ñu daal koy laaj ci diggante boobu fa soo ñu laaj ko ana mu daal tontu nag ci xaafi xutba maanaam ci saj xutba bi daal ne wal maratu saarat sumunuha tusua mu daal xutba bi kon loolu li mu lay tegtale mooy ah kii kat kàngam la ci wàll ci saxaabatul kiram xam naa ci saxaaba yi eh, ci miraas ko defee daal di tënk foofu ndax waxtu wi mi ngi eh, ñëw. ñeenteel bi mooy Sayd ibnu Abi Saabit Sayd Sayd ibnu Saabit mooy Sayd doomi Saabit Daxaak mooy baayam al la ci raax Xasraj la bokk dégg ko mooy pap doomam moo tudd Saïd bokk na ci ulama saxaaba rawatina ci xam-xamu miraas bi waaw bokk na ci ñi laa bindal yonente bi sallallahu alayhi wa waxyu ibnu abbas mii ngi ñu la waxoon léegi ci ginnaaw radiallahu taala anhu daana ñëw ci sayd saabit mi di jàng ci moom xam-xam waaw daana wax naan al ilmu yu'ta wala yati maanaam xam-xam da koy dikkal waaye doo toog xam-xam di la ñëwal loolu la am laa leen ibnu omar maanaam omar ibnu alxataab yi tam radiallahu taala anhu eh, daana ko bu masaan di dem ci yenn kii daana ko tooglu maanaam daana ko wuutal ci madina ngir mu toog di yor àtte ba moom sayd faatu na atum 45 am ñu ne ginnaaw 45 la faatu ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi sallallahu alayhi na ko lu mu wax mooy afradukum zayd ibnu saabit afradukum zayd ibnu saabit zayd moom nag jëmmi bi rek jëmmi turam rek borom xam-xam yu miraas yi ñu ngi ciy génne ay cax waaw ñu ngi ciy génne ay cax cax yi ñu ciy génne mooy euh, zayd ibnu saabit moom nga xam ne kàngam la maanaam jëmmi turam woowu rek boroom xam-xam yi ñu ngi ciy génne ay ay ay ay bi ay cax cax yi ñu ciy génne dañuy wax ne ci turu Zayd bi rek usulul faraid ak asxaabul faraid ci la daje ndax boo jëlee racine bi Zayd mooy usulul mooy juróom-ñaari euh, cosaani masala yi mooy euh, nisfu rubu sumun sulus sudus sumun euh, sulusaani muy wéy loolu lañ ci su ko defee kon zaay bi su Euh, euh, euh, su ko defee loola yaag yi nga génn ko mooy fukki yi nga xam ne dañuy doon ci góor mbir ijmaal ñeenti nag daal bi mooy adadu asbaabul irs ak al usul lati laa taxuli ila axiriha comme naan ko borom xam-xam yi leerale waaye loola dafay gudd su ko defee li ñu bëgg a wax daal mooy xam-xamub sayd maanaam sayd maanaam sayd ibnu saabit radiallahu taala anhu kàngam la ci wàll wi kàngam la ci wàll wi euh, léegi nag li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax afradukum saydun moo leen gën a dégg miraas ki gën a dégg ci yéen miraas zayd la léegi borom xam-xam yi dañoo wóote ci tawilu waxam jooju ah ñeneen yonent bi sallallahu ko wax ngir soññi ñeneen ñi ci ñu rawanteeg saydin ci gën a ci xemmeem ko ndax saydin dafa dog woon rek bàyyi lépp waaw daal di jënd ci xam-xam mirage rek wuuteeg ñaar ñenn ñi ne déedéet loolu yonent bi daf ko wax tasrifan waaw donte keneen at bokk naa moom ci xam-xam mirage loolu yonent bi daf ko wax tasrifan nee ko euh, comme ni wax ne comme ni kenn di wax naan aqrakum abi wa a'rafukum bil xalaali wal xaraami maas euh, maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne aqrakum ubay euh, abdullah ci xadis bi maa ngi fàtte sax mooy fam naan wa a'rufukum bil xalaali wal xaraam maasum jël wa asbaqtum hajatan abu zar wa aqdaakum alayhi comme ni mu ko waxee loolu ko wax tasrifan rek ñetteel ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo wax ngir junj ko ci saxaaba yi ni ki gën a dégg ci yéen euh, xam-xamu miraas mooy Zayd waaye nag loola ci jublu mooy euh, saxaaba yi yëpp dégg miraas waaye nag boo génne Zayd ba teg ko fee moom mm, kaneen na ci loolu liñ ci teg loolu kon mooy tënk bi ci yoon su ko defee kon nag eh, ngir njëkkante waxtu wi liñ bëggoon waxtaan wi des na xëy naa bu ñëwaatee yeneen àjjuma incha allah eh, waxtaanee àggale waxtaan wi ndax des na ñu ngi doog wax ñeenti ponk des yeneen ñetti ñeenti ponk yaakaar naa mooy lislaam naka la doxe diggante jaahiliya ak lislaam naka la eh, miraas daa doxe ak lu tax góor ak jigéen di ëpplante ak li nga xam ne kuy bëgg a jàng xam-xam miraas war nga xam su ko defee lu ci jub mbaaxu suñu borom tabaaraka ñàkk fasaxa in uridu illa al-islaaha ma stata'tu baax di am mbégte bu baax nag ci ma Fari Njaay Fari Njaay macha allah am na solo ci xam-xam boobu di ilmu faraid muy xam-xamu miraas e, wax ñu fi nga xam ne mooy sësluwaayam ci alquran ak ci sunu yonent bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi nga xam ne yu mag lañ yoo xam ne yu aayoon nañ ci fu fànn wi wàcc na ci Sayd ibnu Saabit comme ni nga ko junjee ci addis benn addis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne kii ëpp yërmaane ci sama xeet mooy Aboubacar ki ci gën a ci diine yàlla ji mooy Omar ki ci gën a dëggu ak kersa mooy euh, Seydina Ousmane ki ci gën a mën a àtt mooy euh, Ali ki ci gën a dégg euh, lii di xam-xamu miraas mooy Zayd ibn ki ci gën a xam alquran xam njàngin yi mooy Ubay ibn Kaab ku ci gën a xam lu araam ak lu dagan mooy Muaas ibnu Jabal mu ne nag xeet wu nekk am na seen confident suñu ki nga xam ne moom la ñu wóolu nag ci umma bi ki ñu gën a óolu nag ci umma bi mooy Ubayd Ubaydullah ibnu Ubaydatul ibnu Jarrah Abu Ubaydatul Amir ibnu Jarrah macha allah xam-xamu miraas di xam-xam boo xam ne bu am solo la comme ni nga ko junjee ci départ bi. mooy kenn ku nekk da ca àtte la boo xam ne dana daanu sa kaw dañ la miiraasal sa mbokk wala ñu miiraas la ak loo muntu demee ak lu ba tax te lu ñu xam la ñu war koo fonk war koo jox cër ndax jox war koo jox itte ndax e, miiraas da ko war a yàlla defee ndax moo ko séddale boppam. ñu koy sant bu baax nag macha allah leer na te dal na yaakaar naa ne bu ñuy defaloon nii lu mat euh, weer ak sama classe bi eh, danañu <laughs> dellusiwaat ci masala yi bu baax a baax a baax jërëjëf ñu lay xaar ci li des ci tomb yi incha allah jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Fadil ak imaam suñu imaam suñu papa suñu suñu jërëjëf wax yàlla nit ku baax nit ku bëgg xam-xam nit ku bëgg euh, lu baax loolu lañ xam ci yow xam ne mat nga ñu bàyyi mën nga ñu lépp waaye teewul da ngaa wàcce sa bopp ba mën a ànd ak ñun sa moromi doom yi lépp li ñu boole nag li ñu liggéey mooy xam-xam mu ñu liggéey loola xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ñaan wax nga dëgg xaalis boobu moom laa doon junj waaye damaa xaw a damaa xaw a fët ci téere yi. topu xam-xam ki topu dongo yeeg taar yi rek naa nekk ba xaw fët macha allah yàlla yàlla barkeel barkeel daal yi macha allah.